Euh, Cheikh Omar le roi des arènes Modou Xarañ Lo mon meilleur moom mi nga nationale de la presse sportive euh, dañ ko nominé def le meilleur lutteur de l'année surtout chez lutte frappe euh, mu ngi noonu war jël prix bi nga moom la ko sportif yi rawatina journaliste yi euh, ci vote bu vote bu intense waaye vote bu ah, neex euh, gis nga Modou mooy si noonu euh, Modou nuyu naa la ci deux minutes Modou ci deux minutes. waaw ah, buur fay naa la.

te defe naa waaw góor bi waaw góor dàq ko mooy li frappe bi ñu jox la ci meilleur lutteur de l'année loolu sant yàlla bu baax la mais encouragement la encore ci ñun waaw parce que dinañ gën a soññu xam xamoo gën a tax ñu yokk lu ñu daan def daal redoubler suñuy effort waaye mais tey euh, mel na ni que lu sax wàllu sport lañ la lañ la rendre hommage mais tey réew mi tey moo rendre hommage tey boo duggee ci salle bi tey da nga gis ne tey réew mi yëpp fi nekk Alhamdulillah c'est un yalla comme ni nga waxe rek neex na encore pour ñun xam du di tax ñu suñu liggéey rek. prix bi ko C'est ah. <laughs> ah, képp kuy jox euh, ngi ngi di surtout ma copine euh, Sala mon ami. maa ngi lay nuyu euh, le roi et la Cheikh Oumar euh, jaadu naa ndax tey bu ñu ko xoolee ci wàllu parcours euh, jaadu na li mu dajale ci ay victoire yàlla na waaye parcours sportif am tamit aussi yàlla na moy def na ay ndam yu yu am solo ba gis nga couron bi euh, ren lako jël jëlé ko ci loxo ki nga xamni mom moy Ema euh, Sen waye modul di continuer routeam ba tay gaay nga ciow nak fan yi digënté ak Ama Balé digënté ak Bomar Dji waye ba tay modul mu ngi continuer yonam ndax bo gisé da nga gis sportif bo xamni il est super concentré Cheikh Omar super concentré boy bi guerrier la mu ngi nonu di dem jëli trophée am ndaysan and ak papis euh ascenseur be nek ni wala mu ngi job mais kontaan waa waaw gis nga kontaan nañ bu baax. sa waay ba ngay nekk liital booy yooyu tey ngeen ànd tey ba mu dégg roi des arènes tey euh, tey ñu war ko nominé xol sedd. waaw xol sedd na trop. waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ trop di ñaan yàlla affaire yàlla na ko jik quoi. Pythagore bëgg nga. waaw mais kontaan nañ trop ànd ak mbégte bu wér a ah. wér parce que li ñu doon ñaan yàlla yàlla sama borom defal ñu ko yàlla mu jik ñu lu gën si ñun daal kontaan nañ trop ànd ak mbir. ci ñaari ñaari trophée la am. ah gis nga de parcelle. da ngeen saf sap. parcelle wala rock énergie. léegi <laughs> mooy rock énergie ah énergie mooy parcelle ma ne parcelle mooy rock énergie muy yëpp écrit yëpp benn la foofu. mais nag temps ñu ngi naan làmb ji VIP yee ko yàq quoi ndax dañu aj cachet yi quoi. aywa aj dara maa ngi lay ziar Yaram. maa ngi lay ziar bu baax sëñ Yaram tey gis nga mbir maa ngi ni tey ah ànd ngeen ak booy bi ba mu dégg roi des arènes tey ngeen ànd ak moom ba mu war a jot tey trophée bi nga xamante ne que mooy trophée AMPS. waa loolu sant yàlla la rek ndax moom it wax dëgg yàlla liggéey na ci làmb loo xamante ne mun na ko may lu nekk ci làmb waxuma la dara burul dara yaram rek. mun na ko may lu nekk te ku bëgg nit ku bëgg ay nitam kuy sonn ci ay nitam te yàlla moom dafa bëgg ku bëgg nit bëgg ku bëgg loolu daal kon Modou amul lu ko jomm ci àdduna ndax nit ki sa sa yar rek moo lay yóbb ci loo loo gis nga am ko rek yar moo la koy may te ñun dañ koy ñaanal gudd fan gudd ñaanal ko wér-gu-yaram ñaanal ko yàlla defal ko affaire loo lu mu am rek na ko yàlla yokkal fulal ko ko loolu la mu ngi parcelle ma ne waa Rock énergie moo ne ma non waa Rock énergie waa parcelle Rock énergie la mu ngi noonu mais Rock énergie la parcelle 1 ba 21 ah ana parcelle mbooloo ah du fii du fii euh, juum nañu bësal 1 1 boo bësee 1 da ngay wàccaat de damay wàccaat de ñun yéeg eh, Cheikh Omar man naan lu ma ascenseur ba tey de ah waay waaye waay man buur xaw ma ndeysaan man xaw ma ascenseur Cheikh man ay escalier laa xam ay échelle ay njoowaan ay yéeg ci kaw garab fii la yéeg si euh, mu ngi noonu <laughs> bàyyi xanaa <laughs> ndeysaan Lamine de Laye Pythagore mu ngi noonu Cheikh Omar mu ngi noonu gis ngeen tey public bi yëpp a ngi koy may loxo Euh, tey la ministre des sports euh, Matar Ba war ko war ko teeru mu ngi noonu gis nga yére bi ñu ko ñawal sax euh, lim ci def mooy li nga xamante ne que moom mooy moom mooy couronne roi di wane ni que xam nga il est roi des arènes gis ngeen Modou ngi noonu yëg si ànd ak ñi mu doon àndal toujours ses amis de toujours ah ndax gis na fi ku ci mel ni ku ci mel ni Santan gis naa ku ci mel ni Yaram gis naa ku ci mel ni Papis waaye gis naa ku ci mel ni ñoom laay Pythagore donc tour ak énergie la donc day wone ni ko rek xalé bi batay famu teggone ay ani dem mom fofu la tek ani tayam kon ñu bayiko mu dem nuyu musulmi dem tok